le capitaine de cette équipe N'ai-je pas été coordonnateur de Benno Bokliaka de cette commune Mais si. C'est pour ça que par extension, peut-être même abusive, certains m'ont attribué la victoire. Je ne l'ai jamais revendiquée, sous aucune radio. Je ne l'ai jamais revendiquée. Mais aujourd'hui, il est clair que je puisse me réjouir enfin de cette victoire, parce qu'elle est belle, notre victoire. Je voudrais la dédier non pas simplement à Aïsafal, mais je voudrais la dédier à tout le monde. Même à mes amis journalistes qui ont travaillé à leur façon, à leur manière. Je voudrais donc remercier tout le monde ici et maintenant. Mangi sante yalla bu baax a baax di sante samay waajur di sante suma serigne di ñaan yàlla ndam yu dul doon bunt buy ubbeeku rekk ci xéewal guy baawan saawan ñëw fii nag ba pare dooga nag baw nag dem ca kaw wër cees ak àdduna a ah, ndaxam nag ndam loolu nag mën naa ne ndam loolu mën naa ne ndax wàññi boo gis rek ca benn lay tàmbalee kon ku ne ci ñun rekk mën naa taxaw tey jii fëgg dënnam ne man maa gañe ndax Lamine Aïssa képp kartam kart la yore waaye nag loo gis dafay am lu ku ko jiite boo buggee mbir yi dox dafay am ku jiite waaye ñañu jiite itam nangu ne dañ leen a jiite ñu topp ca loole président Macky Sall dafa jël dogal dénk département de Thiès le ministre Augustin Tine mu ci def liggéey bu rëy bu mucc ayib ñëpp gis ko mu wëlbatiku jël commune de Thiès euh, ville de Thiès teg ko ci suñu loxo frère Thierno Alassane Sall mu ne ci di liggéey. metti na ndax jité dafa metti waye damay faral di wax né suñu borom day mo dàq paramètre képp ku dugg ci domaine bobu paramètre moy nga nat nit wala nga nat mbir ba mu jekk bép xétu jumtuwaay bo mën a jariñoo ca mbir momu nga fexé ba mu yam ci kép ba wala fi buñ koy tudde naan cala loolu moy paramètre doomu adamay suñu borom paramètre ñii mën a jiite juróomi nit képp da leen caa paramétrer tëj leen fa ba nga xam ne bis bu ñu jiitee juróom benn nit rek seen jafe-jafe tàmbali ñii mu jël leen paramétrer leen ci fanweeri nit ñii mu parametre leen ci téeméer ñii ci junni président Macky Sall moom xëy na dañ koo paramétrer ci ay millions yi nit doomi aadama waaw moo tax boo xee seetoon na mu jëlee réew mi. wax dëgg yàlla mu doon lu yéeme kon ñun ñëpp war nañ ci jàngat a ah, ñun nag danoo toll fii xamuñu ci luñ ñu paramétré waaye day suñu fit moom ak suñu xel-xam xam ak suñu xalaat ak suñu cofeel ak suñu xol nat nañu suñu bopp ci ay junni junni junni junni junni junni doomi aadama waaw ku mu neex nga wax fa nga yam ñun day xam nañ ne suñu ñaanu sëriñ ba mu fekk see suñu ñaani way wayjur fekk see suñu jëflanteek doomu aadama yi fekk see suñu cofeel bi mu am ci ci doomu aadama yi wala ci waa Cees boog ak waa Sénégal ah jàpp nañ dey lu ñu yootu dinañ ko jot ci barke suñu borom ci taxawaay bi ca saasa kon nañu bàyyi xëccoo bi nañu liggéey suñu parti ndax ndam boo ko buggee liggéey dafa am nooy taxawee wàññi nañu benn tey waaye nañu ci jàpp nag ndax ñu wàññi juróom député yi nga xam ne dañ leen war a fal 2017 waaye cees noor bu ñu ci kenn ëppale waay ma ne waaye war nañoo liggéey liggéey liggéey ba nga xam ndaw yi fi wax léegi dañ ciy am seen wàll am ci seen wàll bu yaatu nag waaye loolu ku ko mën a liggéey ndax nañ ne cees Nord cees Est a koy liggéey maas ñun ñii ñoo koy liggéey ma ne député ya nga xam dañ leen war a yóbbu ca assemblée ba 2017 buñ ca yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam waaye jigéen ñii fi toog topp Lamine ay Fall dañ cee am wàll ak cër waaye loolu waa loolu ku koy liggéey ku dul yéen kon nag professeur dafa ne léegi nelaw jeex na nelaw amatul nañu jóg liggéey tàmbali ko suba xam ne at dafa gaaw ku xool anniversaire ba anniversaire rek da ngay yéemu at noonu la gaawee loolu la ñu bëggoon partage ak yéen tey jii gannaaw ba ñu leen diggee rassemblement bu mel nii ñu fàttaliku te béggee suñu ndam li ñu ngi sant ñëpp ci teewaay bi di bég ci ñëpp ku fi teew ña nga xam ne dañoo def déplacement bu rëy itam vraiment egg na ci ñun egg na ci suñu xol ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp kuñ fi tudd sa tour nag à part yi ñu ngi lay euh, vraiment jéggalu xam ne xel day fattu. dañoo demoon ci booloo defar Thiès ak Benno Bokk Yaakaar amul benn sànq bu ñu indi tërwoon bi tey ñu booloo ndam am kon donc ci booloo boobu nañ continuer ci lancé boobu continuer di booloo buñ ko deful di xool ay détails personnels buñ demee 2017 ba 2019 on va rencontrer les mêmes problèmes man li may wax tey mooy tout un chacun li doyen bi man moom mooy coordonnateur Benno Bokk Yaakaar euh, ci département bi ak ñeneen ak ñeneen ku si nekk lu ci mën rek il faut appeler les gens ñu dem ci l' essentiel l' essentiel bi mooy dynamique bii ñu nekkoon ñu consolider ko tout un chacun de cent dedans ñu ànd 2007 quelques mois moo si def élection député ñu tàqali ko ak waa ji 2019 du mën a taxaw bay présenté wu je vous remercie et je m'explique. waa Thiaw xam nga woon lii ñu waa HLM Thiali xamuñu ko de xamuñu élection xamuñu def xamuñu suñ ci waaye ginnaaw yàlla ak yeneen bi bi nga ñëwee la lépp leer Ndiaye man daal maa ngi de toute façon daal maa ngi félicité Thiali ñëpp ñëpp ñëpp ndax bi quoi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk ci kaw ci kanam suñu baax te ñu gën a góorgóorlu gën a dem ca kanam wasalaam si laa yem. ñun nag waa Jaxaaw ñu ànd liggéey Jaxaaw ba ñoo jóg ku topp ci gannaaw la nga jaay jàppale si lépp lu muy def

jigéen ñi taal yëpp kon ngi jël suñu nuyu di ko jaarale ci soxna Ndeye Diaw waa Jaxaaw ñu jël suñu nuyoo di ko teg ci loxol soxna Xadi ba mis ñu wax di ñuy ñëpp ñi fi teew responsable politique yi fi teew yëpp tamit di góor di jigéen ñu ngi leen di nuyu ci turu ki nga xamante ne nii mooy Amadou Lamine Ndiaye ñu koy wax tamit Amine Aïcha Fall di nuyu soxna Jeereen moom tam ci kenn ci ñun ñu bokk dëkk Kawsara suñu borom dajalewaat ñu ñu fii tey kon mën naa wax ni ñoo bokk benn tool bu ñu nekk di ci bay sama wax nag lu bari wante day am loo xam ne dama koy wax jëmale ko ci ñi nga xam ni ñoo takku fas yéene ànd ak Lamine Aïcha Fall mais beneen boobu sama teewaay tey laa leen di wax lan ko waral tey dafa mel bisu tey bi bisu sant la ndax am na luñ doon sàkku suñu borom may ñu ko kon dañuy ñëw delloo ko njukkal sant ko ndax dinaa dégg ci jàngkat yi ñu wax ni suñu borom moo wax ni ñaan leen ma ma may leen ma may leen. ngeen sant ma ma dolli leen kon suñu ko ñaanee ba mu may ñu war nañu tase wax sant ko ngir mu dolli ñu ndax li ñu bëgg kat amaguñu te li ñu ko may li ñu koy may fa ñu jaaroon ba am lii foofu noonu la nit ñi bañ ko teg ndax politique lenn képp la di mbooloo ku la ëpp mbooloo ci politique moo la gën a dem ci kanam te Lamine Aïcha dafa am loo xam ne suñu borom daf ko ko may muy ñun dañu ànd ak moom li àndee ak moom yàggul am na lu boole moom am na ko ñun am nañ ko du lu ñuy wax wante su fekkente ni dañuy dugg ci mbir mu nekk le seul responsable de la zone nord nga xam ne moo koy sant centre de vote muy centre de vote bi nekk Thialy moom képp moo ko def kon fekkee woote nañu nga xam ne ñoo ko ko may muy yéen ñii toog loolu yell na mais dama leen di wax ni ci misaal rek ni ma koy waxee politique mi ngi mel ni mi ngi mel ni nag tey bu benn soxna yëkkatee am nag kii am te benn loxo kii am ñaari loxo kii am ñetti loxo su natt ba këppee kii am ñetti loxo la muy yóbbu te am benn loxo du ko yóbbu kon noonu képp la politique mel natt bi nag mooy ay nit kon képp ku ci nekk. yow fexeel ba sa benn baat boobu nga am nga téye ko te fexe ko boo mat ñeneen ñoo xam ne dinañu dugg ci biir loolu moo ñuy may li nga xam ni dañu koy ñu am ko.